Balla Gaye de Gris mhm. Bordeaux état de forme ñoom ñaar seen premier combat bu ñu simmee ko euh, ñoom ñaar t'avais vu quoi en fait forme Balla forme Gris Bordeaux honnêtement honnêtement gis nga bu mu ñëwee différence physique bu mu indi versus yeneen combat am yi da ngay sentir ne que kii le fait que mu dem INSEPS dafa gën a athlétique tu vois et le fait que mu gën a athlétique daf ko yokk mobilité boo ko gisee ni mu doon bouger sax da ngay sentir ne kii il est plus mobile tu vois fait que te feeñ na ci biir bëre bi dem na fekk si koo def yëpp mais c'est juste que Gris lutteur bu expérimenté la tu vois mënoo ko ñëw sëxatal ko comme ni ngay def. mais mais mais attention Jib Jib Balla contre Modou Lo la dem INSEP mais contre Gris demul woon INSEP. demul woon INSEP ah. non non wax nga dëgg. non contre mais. waaye contre contre Gris. demul woon INSEP. premier combat la la la benn forme ak rase yi gars yi di ko ah, tudd mais il n'est pas en forme. ak rasta yi tant bi mais attention foofu tamit mu ngi woon déjà si phase de perte de gras versus ñaari combat yi wàccaat na de tuuti mais da ngay gis différence versus yeneen combat yi mu mujjee def que dafa perte poids lu bëri yaramam daf ko gënoon entendre tu comprends ce que je veux dire. Ah, maanaam yow tu penses que. tu penses que Balla forme bu mu indi contre Gris Bordeaux moo gën baax forme bu mu indi woon juste avant contre Eumeu Sène et contre Bombardier contre Tapha Tine. Ah, mais oui sax benn gis nga gis nga xam nga nit yi dañuy jowaat rek koo xam ne dafa ñëw pata moom pata jigu ko ci biir bëre wam xam nga fan la ko jigee woon contre Yékini kese ndaxte Yékini foog nga xañ ko fu muy jàppee nga am benn masse corporelle boo xamante ne du mën a jàpp facilement tu comprends ba pare foog nga koy sa sa poids corporel en plus sa doole mu gën a dem tu vois mais buy ak ak booy yi nii nii nii indi poids yooyu noonu xanaa laaj ko mu nekkee ak ëmm mënoo am attan ñàkk attan sa bopp ba pare bëre ak ëmm noonu fallait que mu indi athlète boobu mu nekkoon avant puis contre Gris foofu la phase boobu di njëkk a commencé di wàññeeku c'est que il avait beaucoup plus gisoon nga mu gën a mobile mais bu mu ñëwee nag contre contre Modou après dafa confirmer foofu nga gisee ne le fait que dafa gën a perte euh, perte encore gras il avait plus de contrôle. et eh, maa ngi ziar sama xarit yu may nuyu yëpp ah Papa Diop moo 2 mu ngi nuyoo Diouf 413 Momo mon fils Dallu ak ñeneen ñi ma gisul ñëpp mais jib xëlk Euh, là je rappelle ah pour gars koy seetaan ci YouTube je rappelle qu'on en direct sur Instagram ak Djib Xëlk. Djib Xëlk gis nga ko forme bu mu amoon yow pour yow moo gënoon baax euh, contre euh, comment dirais-je encore moo gënoon baax forme bu mu yoroon ci ses précédents combats. Mhm. mais est-ce que pour toi c'est une forme normale pour Balla xoolal Balla nu mu meloon ci combat bi. mais du forme bu normale pour moom mais on s'entend qu'il a été gënoon na gën pata gën ni mu doon bëree yeneen combat yi tu vois fii nii da ngay gis ne mu ngi rien que nga gis biir bi ni muy commencé pan noonu le fait que ça veut dire dafa perte gras corporel ba muy pendre période bu muy bëree ñeneen ñi biir bi day rond man du du am luy pendre loolu moo lay wane ne perte na gras tuuti si combat bi il était mhm. un plus mobile tu comprends gis nit fu doon am na benn instant bu mu doon bu muy wëndeelu wëndeelu woon boobu ba perte ba naroon daanu est-ce que gis nga mhm. mhm. loolu yëpp ay yoo xamante ne kii garder na équilibre même poids am mu ngi koy maintenir ba tey gis nga bu mu doon toppandoo tamit gris bi gris tëb écarté ñaari tànk yi ay affaire yu ndaw yu mel noonu si ngay analyser wee tout le temps xool ne kii ndax antan na yaramam ou pas ci vois boo ko indi woon ci yeneen combat yi avant mobilité am. oh sax benn day duré ko tout le long. la man la. ok. Euh, yaa li ma la bëgg laaj mooy Balla dafa indi benn euh, forme boo xam contre Gris xaaruñ ko woon ci moom ah mais n'empêche c'est yow tu dis que c'était mieux que les précédents combats mais après mu ñëw contre Modou Lo indi une forme exceptionnelle est-ce que euh, euh, combat bi jeex on voit que Balla reprend du poids actuellement tu as vu Balla jouer chez lui tu as vu les vidéos de Balla loolu loolu gis nga nag gis nga différence bi yëpp foofu foofu ngay gisee différence entre moom ak Modou Lo entre moom ak yeneen yëg nga xamante ne même suñu amul combat il se maintient en condition xanaa xamoon ne plus nga gën a bàyyeeku gën a jël graayeen yi plus boo jege say combat c'est plus difficile nga préparer ko parce que da ngay teg sa yaram benn choc boo xamante ne foog nga re foog nga am benn période de transition balaa combat bi di arrêter pour nga relaxer tu commences que je dis te que nga war a liggéey ko nga ko alors que su fekkoon ne da ngay maintenir tout le temps ce poids corporel off season maanaam que nga commencé am combat comme nga ñàkk am combat day gën a ci yomb foofu da ngay gën a gis évolution entre bii combat ak bële combat mais bàyyeeku noonu day mel ni day recommencer tout le temps. Mm-hmm. Euh, mais attention ça veut pas dire que ne mënul indi benn forme boo xamante ne mu gën que bu mu indi woon avant tu comprends c'est juste que foog méthode d'entraînement yi changé bu gën a intense puis mu teel a commencer. Hmm. mu teel a commencé hmm. est-ce que est-ce que est-ce que Balla est-ce que Balla mun na am une meilleure forme que lu mu amoon contre Modou Lo est-ce que mun nañ amaat un Balla Gaye muy bëri. mais bien sûr un Balla Gaye muy bëri baaboo yi wala wala. moom moom laa lay wax gis nga période boobu noonu mu defee combat ak ak ak ak Modou ba pare. dafa waroon continuer ci benn phase boo xamante ne day wàññi ndànk mais dafay maintenir body fatam maanaam pourcentage de gras am ak pourcentage de muscle am si biir yaramam tu comprends maintenir que de telle façon bu commencé waatee combat bu yokkaatee day gën a ñëw si niveau bu gën baax mais période bu mu relâché nu mu ñëwaatee jëlaat yaram noonu daf koy handicapé réellement tu vois c'est que il fallait que mu maintenir tuuti mais ça veut pas dire que indi poids euh, nu mu meloon comme avant pour mu indi shape bu mu amoon comme bu mu mu doon nekk ak gars yi fokk mu teel a commencé mais teel commencé parce que moom c'est bu dee doole kese soxlawul soxlawul yenn ngande yi pour am doole ngande ak doole ça fait deux. Mm-hmm. Mm-hmm. li muy li muy li muy li muy bëre ak ak ak gris moom ngande arrangé wu ko si gris wax bi yëpp foofu la nag parce que gris foog nga indi ko explosivité foog nga gris foog nga gaaw bëre wam ak gris warul yeex bu yéexee du avantage am parce que Gris plus combat bi di gën a gudd plus muy gën a jël confiance. Mhm. loolu da nga koy seetlu si yeneen combat des fois sax des fois sax excès de confiance boobu noonu mooy tax ba muy daanu boo ko seete si moom ak Eumeu Sène tu voyais que plus combat bi di dem plus c'était plus confiant mais dafa bokkoon nekkoon ak boo xamante ne dafay lucide durant même bu jëlee ay coups tout le long tu comprends c'est pour moom foog mu travailler endurance musculaire mais tout en étant explosif avec Balla parce que Balla dafa explosif te que Balla tamit. ah là tu de Gris Bordeaux mais pareegum ak Balla Gaye 2. ok vas-y dinaa dem ci Gris Bordeaux y a des questions spécifiques pour mmh. euh, ce que le fait que nekk en superbe forme. Mmh. Euh, contre Modou Lo après ñu gis mu commence commencé mmh. jëlaat poids est-ce que bu reprendre entraînement yi loolu mën na ko indil ay ay feebar genre mel noonu. loolu loolu loolu dinaa dinaa la mën parce que gis nga gis nga sa yaram loo ko taamal rek mu taama ko boo nekkee si période boo xamante ne da ngay pare combat di lekk normal sa sa système digestif sa foie say rein ak yëpp dañuy adapté wu tàmm loo xamante ne da nga indi lu baax léegi bu combat bi rek nga bàyyeeku di lekk n'importe quoi sa yaram day am choc day am choc maanaam li ngay ñëw di lekk différent ak plus gras léegi moom danaan oh toog naa lu yàgg aw ma woon fekk damay jël di stocker le maximum possible fekk post combat foofu la gën a susceptible pour jël gras ba pare pata moo tax foog ngay contrôler même sa coop même bu fekkee ne da ngay coop n'importe quoi boo paree combat foog nga koy def graduellement pour sa yaram bañ jël choc boobu en emmagasiné léegi nga pata one shot tu comprends donc moom loolu la waroon def dès le début pour mën a mais ça ne veut pas dire que mënul ñëwaat normal dina ñëwaat normal c'est sûr mais c'est juste que ça demande plus de travail alors que travail boobu muy fournir mënoon na ko def ci beneen côté ci biir làmb ci bëréewam hmm. et que day gagné temps day day gagné temps si préparation hmm. ball la euh, wax nga ko léegi Balla contre Gris Bordeaux est-ce que dafa war a même forme que contre Modou wala un peu moins mais un peu plus mince un peu plus euh, gras qu'est-ce qu'il doit faire foog gis nga bu ñëwee bu ñëwee indi forme yoo xamante ne dafay ndaw torop ça faut se le dire lii dafa am doole tu vois plus mbër plus nga gën a massif plus ñu gën mu gën la yomb ñu jàpp la fekk grippe bi gën a yomb maanaam fu muy fu muy jàppee ngembam day gën a yomb alors que koo xamante ne dafa am corpulence c'est plus difficile nga dem jàpp ngembam fekk côté xañ du ko mën a xañ bu baax ngembam fekk foog mu indi benn juste milieu boo xamante ne day gën a wàññi tuuti versus contre Modou Lo ba pare am explosivité moom warul te warul warul warul warul yàgg Gris warul warul dem ci mhm. à l'usure ak Gris parce que Gris day jël confiance avec le temps tu comprends mhm. Mhm. Balla warul yàgg ak Gris donc Balla a tendance à à amener vraiment une forme boo xamante ne da koy permettre mu rapide moom xam nga lan mooy force maanaam moom lu mu appliqué mettons bu nekkee doole la bu la ëppee doole daf la koy won foo jaar daf la koy won tu comprends boo leen jàppante bu la dafa mën a exploiter ay fooram tu comprends donc nit soo sa fort da nga ci gën a dem à mille bul ut loo xamante ne yow du sa fort di guddal lambam di ko toogal alors que koo xamante ne moom plus lamb bi gudd plus mu lay gën a analyser di la gën a jàng mën dem surtout que foog day laajte plus lamb bi di gën a gudd plus ngay gën a vigilant ndaxte gri dafa mën dóor ay droit am yooyu noonu say bu buy dóor coup direct am yooyu daf koy am facilement c'est que loolu loolu du du a ah, du kiiwam quoi foog mu gën a indi mm-hmm. explosivité c'est que moom foog muy traîne en en en en en hypertrophie beaucoup de livres di explosivité explosivité kese la war a gën travailler par contre waaw du ma duggagum ci gris fekk loolu la quoi. mais côté bu duggagum ci gris. ok ñëwagum ci gris mais ci la Balla yow explosivité la war a liggéey. explosivité naka lañ koy liggéeyee la bu duggee salle de musculation est-ce que dafa war a yëkkati ay poids yu diis est-ce que dafa war a yëkkati ay pois yu léger est-ce que dafa war a def ay cent mètres est-ce que dafa war a dégraisser naka la Balla war a préparer bi yow boo ko yoroon noo koy préparer. Ah, alimentation itam lan la war a daf dafa am dafa am ñaari dafa am mouvement boo xamante ne mettons ngay pousse wala ngay xëcc maanaam ngay bench press xam nga da ngay pousse bi wàccaat sa kaw gay ñëw nga koy contrôler maanaam booy xëcc tamit booy xëcc xam nga da ngay xëcc nga bàyyiwaat poids bi delloo ko nànk tu comprends booy déclive dara si suuf xam nga da nga koy yëkkati boo yëkkati day gën a jafe mooy booy wàcc day gën a yomb moom foog muy travailler phase boo xamante ne day pousse tout le temps mais bu koy def soxlawul ngay def ak poids yenn yu mais ñu ngi koy exécuter rapidement tu comprends explosivité loolu mooy mm. travail explosivité maanaam bu bu buy bench dafay def benn poids boo xamante ne soixante quinze pour cent mm. au force am la du dem si maximum mais phase de descente bi du contrôler mais retour bi day day day day exploser même chose pour biceps même chose pour avant-bras même chose pour jambe yi explosivité la war gën a travailler pour pour pour euh, pour gën a pour mën a eh, eh, jibal et mm-hmm. eh, excuse-moi jib yaa ngi ci important euh, mm-hmm. ci phase bu importante plutôt euh, donc li may def je vais juste changer de téléphone euh, ma fay ma arrêter téléphone bi parce que bii dafay bëggee au fait je vais juste changer de téléphone. ok eh, mais attends ça ça peut que c'est moi ah ouais. parce que man man ci àll bi gën. non non mais peut-être aussi c'est je sais pas je sais pas. parce que tu étais en train yaa ngi doon wax ci baal la naka la war a préparer combat bi ay pousse xaw ma am na loo xam ne da koy bàyyi nànk am loo xamante ne da ko war a kii bu gaaw ak yooyu noonu. Ah, donc je ah. sais pas est-ce que du ma changer téléphone tout juste pour être beaucoup plus sûr. comme ça ñu ñu ñu ñu nga wax ma Balla lu boo ko yoroon yow noo koy entraîner ci combat bi. ban régime alimentaire nga koy jox lan la war di lekk. la boo ko xëyee matin bi ñaata séance la war a def. soir bi ñaata séance la war a def. après nag ñëw ci Gris Bordeaux forme physique Gris. ak Gris ñoo koy entraîner après ñu wax yeneen combat yi. yaa est-ce que d'accord ngeen ñu def loolu kon ñu dem ak Jib kon ñu ñëwaat ah. ok Jib. ah Jib. yëpp. waaw on espère que cette fois ça va être tranquille. waaw incha j'espère. ok mais yow ci ban àll nga nekk instant yi. man maa ngi Chersey est-ce que xam nga Chersey. Euh, si si si biir Québec la nekk mais fii dem fii ñëw rek pour pour def moto quoi. ah ok mooy fi ngay defee sa moto yi mais gars ñi ngay dawalee moto yi baaxul de. <laughs> non gis naa loolu gis naa sa beneen live bu nga doon conseiller gars yi nag m mbër yi bañ a dawal moto. loolu dëgg la man gis nga man su may def moto du ko def ci tali. du ma moto si tali mukk mukk mukk mukk. mais yow dawalul moto yow mooy genre figure yooyu nga def jël ndaw loo ko wëlbati moto bi noonu. avec non mais cent cent ñaata kilos. mais cent dix neuf en ce moment mais instant yi fii si suuf la quoi xam nga wala bàyyi ma la ci suuf ngay tëb quoi. mais yow waaye yow gis naa sa vidéo yi ngay bi di ko naawloo di wul ba ci moom jëppal ko on a besoin de toi quand même faut arrêter. oui oui si non mais xam nga. gis nga ni mooy gisee nii nag. Ah. yow bu di dem foofu noonu. non t'inquiète t'inquiète t'inquiète t'inquiète wax nga dëgg. mais yaa ngi ci digg àll bi am connexion internet bu stable bu nekkoon hmm. fi Sénégal c'est compliqué. mais bon on passe. Jib mm-hmm. Hënk. Euh, waaw Balla Gaye 2. Gris mm-hmm. wax nga ma peut-être Balla forme am noo ko gisee sur les derniers combats et cetera Fabrice Alouche coucou euh, Balla Gaye 2 euh, comment naka nga koy préparer boo ko yoroon au niveau de l'alimentation mais aussi au niveau des entraînements ñaata séance lay def naka lay entraîner naka nga koy entraîner loolu yan genre poids nga koy jox. ok tu vois déjà pour commencer. balaa ngay ngay ngay def plan alimentaire pour kenn foog nga xam habitude habitude de lekk maanaam danga koy poser question lan lay lekk d'habitude d'habitude nan lay ban ban heure lay tëddee ban heure lay yeewu buy yeewu ndax si biir guddiwam dina yeewu souvent ndax ngay xool ndax sommeil am dina récupérateur ou pas maanaam nelaw si la si la lu gër lépp di am loolu mosoon naa la ko wax foofu la hormone yeeg yëpp di defar mm-hmm. wee fekk balaa loolu damay xool analyser nelawam an laaj ko lan lay coob léegi si biir habitude alimentaire am nga xool lan moo si baax lan moo si baaxul mais nit mënoo ko changer loo one shot lu muy lekk tu vois koy def graduellement tout temps lui mettant loo xamante ne moom bëgg na ko quoi si lu muy coob d'habitude comme ça du am ay rage maanaam jékki-jékki saa rek ne ou non instant yi foog ma dem lekk mettons benn burger wala ma lekk alors que warul génn si jetam tu comprends et que mm. habitude yooyu ngay essayer xool si moom ba pare defal ko benn alimentation boo xamante ne day fixe boo xamante ne nombre de calories yi muy lekk nombre de grammes de protéines nombre de gras nombre de lépp loo mën ci xalaat ci si ci ci macro yoom yi daf koy am de façon très précise mënul jéggi yoon benn yoon si biir journée am puis même quantité ndox bu mu war a naan parce que da ngay xool léegi à partir de yenn balance yi nga mën a xam sa body fat sa quantité ndox bi nga am ndax yow nit koo xamante ne da ngay rétentionner ndox bu bëri nga ou léegi de loolu nga fixel ko jetam bu précis nga xam ne moom lii mu ko lekkee par force comme un plus un day perte gras yaa ngi si problème mhm. sans pour autant perte muscle parce que li gën a bon ci mbër mooy di wàññeeku ba pare di pertaale muscle léegi pour loolu da ngay ut ay acides aminés yoo xamante ne daf koy permettre muy maintenir masse musculaire ba pare du gruger si masse musculaire am eh, tout en perdant du gras excuse moi j'en profite pour poser la benn question dama xam muy bëgg a maigrir. Mhm. mais moom muy maigrir mooy lan day sport lu bari te du lekk. day privé ah. boppam lekk. ma ne ko yow euh, est-ce que nekk di perte muscle. tontul ci loolu pour mbëri sam jàngaar ci jàngaar. waaw waaw loolu loolu loolu moo gën a bon. moo gën a nga bañ a def dara sax moo ko gën parce que non seulement da ngay di nga perte gras mais da ngay perte sa masse musculaire. puis loolu dafay indi fatigue chronique dans le long terme. ci yenn maladie yu bëri yoo xamante ne expliquer ñu la mooy fatigue fatigue chronique mooy xamante ne da ngay tooy da mooy tooy day indi tooy maanaam da ngay sonn yenn sonn yoo xamante ne doo def dara mais da ngay sonn yeewu suba teel bougé goo defagoo dara mais sonn da ngay yomb da ngay tàmm sonn quoi da ngay dem ba sa yaram du nangooti da ngay sonn naturellement tout le temps mm-hmm. Mm-hmm. boo demoon boo demoon tàmmoon di yëkkati wala ngay dem daw boo commencé sax da ngay sonn si saa si sonn boobu sonn boobu waaw long terme nga koy gis si sono boobu dafay dem ba répercuté wu si sa mental. Hmm. moo naan sa sa bopp ak sa yaram c'est toujours lié maanaam sa yaram day sécréter cortisone bu bëri cortisone boobu noonu mooy hormone de stress hormone de stress boobu noonu sa yaram physique lay jógee mais day dem ba affecté sa sa sa sa sa ci wa si ngay amee ay down nekkuma ay kii si nga gis lu ma Mhm. donc ñàkk lekk war na mun a indi loolu kon nit ki. buy régime lan la est-ce que war na di lekk. bu normal parce que ñoom dañu gëm di régime ànd ak lekk lu bari. bien bien sûr gis nga nit ku nekk dafa am sa nombre de calories intake maanaam nombre de calories journalier bu ngay soxla loolu dañ koy calculer selon sa taille ak sa poids en moyenne mettons mën nañ ne quelqu'un koo xam ne dafa soxla mille cinq cent calories yow mille cinq cent calories yooyu noonu boo ko coobee. mooy sa poids de maintien maanaam boo yeggee mille cinq cent yooyu doo ngande doo tuuti boo si wàññee de cinq cent mille yaa ngi en déficit calorique foofu sa yaram day commencer mm-hmm. di perte gras te doo perte muscle boo koy booy jël prise de masse tamit nga bëgg masse boo yeggee si sa calorie maintien doo jël masse foog nga yokk si de cinq cent à mille calories bu boobaa sa yaram day am surplus boobu ngay gën a mën defee masse mais nag si biir calories yooyu dafa am ay macronutriments ak ay micronutriments macronutriments mooy lan mooy essentiel yi mooy protéine mooy euh, carbohydrate mooy euh, carbohydrate mooy fat mooy yooyu trois essentiels yi micronutriments yi nag mooy acide aminé yi vitamines yi et cetera léegi nag gis nga ñun si suñu coop normal euh, boo xoolee suñu ay ndékki añ ak am nañ am nañ suñu suñu suñu dañu am tuuti carence en protéine si suñu coop ñun Sénégal en temps normal maanaam parce que ceeb la ñuy lekk jën jën bi du bëri quantité boo xamante ne bu ñëpp toogandoowee si benn bool di nga am assez boo calculer tamit reer en général suñu reer yi c' est plus plat traditionnel puis am na ñoo xam ne ak jën jën baax na mais quantité bi ngay soxla pour pour jën dafa dafa xaw a bëri quoi pour mën a am nombre de protéines fait on est la plupart du temps sous-alimenté en termes de protéines tu comprends fii mm. gis par exemple boo ko waxee supplémenté wul maanaam supplémenté wu mooy jël li li nga li la manqué le pour nga am sa nombre de protéines dañ naan ah non protéine baaxul yooyu moom pourtant dañuy lekk lu pire mooy mooy ay ay jimbo est-ce que yi ñuy defaree yooyu ay jimbo ay affaire yooyu c'est pire sax que protéine suñu meew yi naan chaque jour en poudre na naka la poudre boobu di ñëwee niñ koy defaree mooy dañuy dem processus pour defar ko même processus boobu la ñuy jël pour jël meew normal isoler protéine bi def ko en en en en poudre même principe bi la léegi bu fa bu nekkee protéine isolate dañuy indi lac dañuy dindi lactose bi si biir mu nekk protéine sans lactose boobu mooy nekk le moins calorique léegi ku gën a. ku bëgg a perte gras pour la wala pour lan la. voilà pour koo xamante ne dafa bëgg a perte poids isolate moo gën parce que isolate c' est le moins calorique amul sucre ba pare amul glucide donc protéine kese à l' état pur kese moo si nekk tu vois léegi nag boobu boo koy jël maanaam bu fekkee ne nit koo xamante ne yow da nga soxla par jour deux cent deux cent grammes de de de wala cent cinquante grammes de protéines mettons pour mën a nekk en prise de masse pour mën a defar muscle comme il faut boo amul sa cent cinquante yooyu parce que ndékki bi li ngeen ndékki meew rek nga meew bi nga ngi ci am quinze wala vingt pain bi li ci am du quasi dara añ doo lekk yàpp bu bëri nga am si quinze wala vingt après reer nga am si quinze wala trente wala quarante au final dans ta journée nga nekk si ay quatre vingt dix wala cent yegguloo si sa cent cinquante léegi sa cent cinquante yooyu pour nga matal ko foofu ngay jëlee benn chèque rek pour mu yegg pour mu yeggal la si cent cinquante yi loolu kese lay servir mu protéine bu mës a remplacer coob puis képp ku foog ne tamit booy jël ay protéines da ngay ñëw punkal funki bu doon loolu ñëppay punkal funki protéines yi daf lay supplémentaire rek surplus bi la mais ñun nag sénégalais yi dañu baaxoo suñu yaram dafa dafa wuyu dafa dafa ñeme dafa nangu alors soo demee ba couramment pendant un laps de temps ngay respecté ce cent cinquante yooyu nit ki mu nit ki non dama joxe cent cinquante rek exemple quoi mais chaque jour ngay yegg si sa cent cinquante graduellement mais facilement da ngay développer masse musculaire boo xamante ne laisse tomber tu vois donc c'est vraiment très très très faisable. Euh, dernier point dernier point hmm? may aborder bu tëj parenthèse boobu mooy mbër bu perte poids wala nit normal sax bu bëgg a perte poids est-ce que war na tëbal ay repas est-ce que war na ne damay ndékki mais du may añ reer laay def ndékki ak reer kese laay lekk est-ce que loolu baax na. non gis nga affaire bi c'est pas question de quantité question de qualité ak fréquence la nit mën nga ñëw ma jëlal la par exemple comme comme guy gi mbay guy gi lu mu doon wax ah man su ma leewoo damay lekk lii lekk lii lekk lii dajale loolu yëpp gis nga sa yaram. li mu soxla sur le champ par digestion rek lay jël sa yaram loo ko sol sol protéine ok si premier repas boobu moom du mës a dépasser trente à cinquante grammes de protéine si repas boobu leen li si li mu si soxlawul yëpp da nga koy génne daf koy fléché léegi l'idée c'est yow tout le temps ngay am fréquemment trente yooyu au courant de journée alors c'est toujours mieux de ngay lekk aux trois heures li nga lekk si suba bi yëpp nga koy splitter dans la journée li lekk aux trois heures wala aux quatre heures que nga lekk yëpp one shot nga lekk ndoo bu ngande si si kawam ba pare lekk ndoo bu ngande après léegi ci biir lekk boobu buy jël la mbër buy mbër buy perte poids nag. wala mbër wala nit normal kuy perte poids perte poids foog ngay jox sa yaram pareil nombre de calories nga soxla c'est que foog ngay lekk pendant même booy perte poids perte li ngay perte poids si nombre de calories ngay lekk mooy tax. ah nga nekk en déficit mooy tax nga perte pas le fait ngay bañ a lekk bañ a lekk boobu noonu day day diminuer sa masse musculaire mais dafa am ñenn ñoo xamante ne ay pata morbide mooy manaan ni nga xamante ne dañu pata yenn pata extrême yi ñooñu mën nañ ko def parce que seen réserve de glycogène dafa fees tellement ko du leen wàññi dara. koo xamante ne dafa am biir bu yem nii rek bëgg a perte gras bu moom def loolu arrangé wu ko quoi. Eh, eh, Ibrahima S mu ngi may reetaanloo nee na ma dafa ay question personnelle yu am pour man la man de aw ma problème perte poids aw ma problème mu jël poids mhm. man fi mu toll nii aw ma problème boobu man moom xool <laughs> yooyu sonanu ma <laughs> man nekkuma ci kii yooyu mais euh, macha allah sont des questions yoo xamante ne xam nga yow boo ñëwee def live ak man après dafay bëri ñu ñëwaat ci suuf di ma poser yenn laaj waaw donc damay dajale yooyu yëpp ñëw di la ko laajaat. Mm. donc des fois mm. sax du nekk ay questions yam pour ay mburu làmb rek des fois dafa nekk ay nit yu seetaan làmb euh, live bi di posé waat ay questions. mais mm. mu ci loolu Balla Gaye Gris Bordeaux nee nga ma doo wax lu Balla war a lekk doo wax lu Gris war a lekk ndax il faut nga yor leen pour étudier ñoom exactement la ñuy lekk déjà pour def le régime bu adapté. ah aussi uh-huh. raw ci commentaire yi mag lay séen mais ñëwal ma kon ci entraînement wu naka ngay préparer Balla ci entraînement ñaata séance ak noo koy liggéey loolu benn balaa may clôturer si côté entraînement bi dafa am benn principe boo xamante ne du mës a changer mooy gis nga li ñuy wax sa trois repas yi doo ko mës a manqué ndekki añ reer entre chaque repas nga def si collation léegi nag selon nit ki selon objectif am noonu lay varier varier pour nga selon nombre de protéines et cetera fait que c'est très facile à faire pour loolu plan alimentaire maintenant par exemple ngay jël lu sucré collation mën nga jël benn pomme verte par exemple. non pomme dafa am sucre dafa am sucre naturel la pareil mais da ngay éviter bépp sorte de glucides tu yow koo xamante ne moom dafa bëgg perte poids idéal bi mooy viande légume tout le temps viande légume foog muy éviter ceeb bu bëri moins de ceeb viande légume viande légume bu nekke dafay entraîner autour de entraînement balaa muy dem entraînement boobu mën na permettre lekk lu lu sucré mën na lekk banane comme ça parce que day am énergie boo xamante ne moom la utiliser pour perte gras puis énergie boobu noonu daf koy daf koy utiliser rapidement et que du am temps garder ko donc loolu moo si gën a important pour kii perte am na solo. maintenant nag bu ma ñëwee ci ci ci entraînement. entraînement Balla Gaye 2 bul ba léegi dugguma ci Gris Bordeaux entraînement ñaata séance ak séance yi loo koy liggéey loo. déjà pour commencer man first thing first moom dafa war a perte tuuti tuuti gras c'est que déjà pour commencer de séances lay def foog muy dem def cardio à jeun le matin maanaam le ventre vide du coobagum dara mais foog mu yor ay BCA bu koy def mooy acide aminé pendant muy daw noonu si matinalement bi trente à quarante cinq minutes pendant deux premières deux quatre premières semaines tout le temps trente à quarante cinq minutes maximum bu mu dépassé loolu parce que bëgguñu tamit. mu non warul warul gudd du du sax loolu du dou du euh, du cardio loolu pour juste brûler gras la du benn daw sax lu bëri. waaw rythme soutenu cokki cokki comme ni ñu koy waxee ndànk-ndànk tu du daw du daw en en en vitesse loolu c'est juste parce que matin bi sooy soog a yeewu mooy c'est le moment boo xamante ne sa yaram il a le moins de calories lekkuloo dara et que c'est plus facile pour mu dem jël si sa réserve glycogène ak sa gras utiliser comme comme comme énergie pendant que ngay def sa sa footing matinal boobu. donc pendant première séance su Balla Gaye 2 mooy dafa war a yeewu le matin euh, lekkagul dara. Euh, mhm. le matin ban heure mbëri gis nañ dañu fonk quatre heures du matin wala même bu ko defee. non c'est de la merde ça amul amul amul heure amul heure fajar peut-être ñoom bu ñu koy def dañuy def loolu par pour pour daw regardu nit yi peut-être loolu la mais amul gis nga lu gën a important nelaw nelaw boobu ngay nelaw moo sax gën a important c'est daw boobu ngay dem daw yi tu le matin maanaam am da ngay nelaw ba ba nga xam ne sa yaram da ngay am sa réveil naturel boo xamante ne yow à partir de dix heures sa yaram dootul sax nangoo ci nelaw nga loolu mooy reposer nga comme il faut mais def sa réveil yeewu naan ah, man de dama tas instant loolu doxul loolu doxul jiitu. di di foog nga nelaw de la merde ça loolu moom reetaan loo mais jib ah. donc Balla Gaye 2 dafa war a yeewu le matin mën na nelaw ba dix heures onze heures mu yeewu dem def fii de trente minutes à quarante cinq minutes te du lekk gum dara nga ne mu yóbbaale acide aminé euh, acide aminé mooy BCA mooy waaw mais wax ci benn langage boo xamante ne est-ce que ndox ak xorom lay boole wala ndox ak suukar loo xamante ne maanaam soxla lu mu koy jënd ci boutique protéine chose de naturel bu am acide aminé boobu euh, ah gis nga loolu mooy problématique nag parce que xam nga acide aminé mu ngi mais boo lekkee rek boo xasee ba lekk am na calorie si alors que acide aminé bi ngay jënd si supplémentation du am benn calorie yaa ngi si. acide aminé lan la ndox ak xorom polle wala ndox ak euh, xorom. non non non non non acide aminé benn benn molécule yi nekk si biir protéine la bu ñuy isolé. def ko en poudre nga koy jël def ko si ndox pour mën ko. amul bu ñu mel ne mu jënd acide aminé buy daw di ko naan acide aminé mooy BCA loolu dem ci bépp boutique supplément boo mënti dem am na te loolu yëpp danga nga koy lekk si sa biir lekk normal mu ngi mel ni nga ne damay dem jënd ji euh, lan laa mën a waxati sax comme comme protéine rek la mais c'est différent quoi. c'est nickel boobu dafay jouer rôle euh, anti catabolique. Mhm. c'est parfait loolu mooy première séance su Balla Gaye de nee nga la war a séance loo léegi léegi léegi première séance boobu noonu période bu muy naan acide aminé yi day permettre yaram anticatabolique du perte muscle di perte gras kese bu paree bu paree cardiogène am laa mën na dem ndékki puis premier repas am du am glucides yu bëri day nekk mën na nekk white eggs ak wala griot wala. non white eggs mooy lan bàyyi li ngay mooy blanc d'œuf blanc d'œuf. blanc nen bi day day nen bi dindi lu jaune li teg na li. na baxal nen di cop blanc bi kese. mais foog mu cob si ay cinq six sept affaire yooyu noonu. Hmm. pour moom pour moom pour moom environ am man c'est comme man man en en période de prep normale su may jël masse musculaire damay nekk cinq cent millilitres de blanc d'œuf mais fii di gars dañ koy jaay ci canette mais moom mbër la am na xaalis investissement la pour moom mën na dem jëndi chaque matin muy def ay dix wala douze juste blanc d'œuf du cob jaune bi jaune bi dafa bëri dafa bëri euh, waru waru waroo cob jaune bu bëri quoi tu vois foofu blanc bi moo ëpp protéine tu vois léegi après bu pare ci blanc am de fee mën na ko mélanger ak ak euh, ak premier greens am ah, maanaam euh, euh, mooy les légumes ba léegi ñu mën na nekk brocoli mën na nekk haricot vert mën na nekk loolu coobaale mën na nekk green beans mooy mooy waaw mooy haricot vert waaw haricot vert tu comprends léegi mm-hmm. après deux bu mu mun dallu après añ premier añam idéalement protéine poulet blanc maanaam mooy poitrine de poulet yooyu mooy gën a efficace puis ak ak euh, ak aussi ay légumes à côté tout le temps c'est que deux repas am yooyu premier yëpp foog mu pauvre en glucides puis très élevé en en en protéines léegi balaa muy dem deuxième séance am si ngoon bi boobu foofu lay jël benn repas pris au cadre mooy repas boo xamante ne dafay riche en glucides foofu moom mën na cop ñànkatang mën na cop ceeb mën na to mën na n'importe quel mën na cop pataas. balaa muy dem entraînement mu cop loolu. Mhm. quarante cinq minutes avant c'est que foofu sa yaram dafay da ngay am glucide am énergie bu day pour mën a dem def sa séance de musculation léegi séance boobu noonu deuxième séance muscu dafay dem moom début bi foog mu dem euh, euh, plus en en en explosivité mooy li mu la doon wax sànq explosivité mooy lépp loo xamante ne gis nga booy booy xëcc booy xëcc benn affaire donc xëcc one shot doo ko xëcc en mode euh, da ngay am tempo dafa am tempo boo xamante ne maanaam mettons muy def dos booy xëcc doo di ko wàcc xam nga da ngay xëcc une deux trois retour une deux léegi tempo am moom buy xëcc da koy xëcc bu gën a gaaw tak one shot puis retour bu normal tu comprends buy pousse tamit bu pousse buy bench day pousse mettons xam nga poids bi da nga koy xëcc nii mu wàcc ndànk mais day mm-hmm. pousse one shot bàyyiwaat mu ñëw. day pousse pousse one shot bàyyiwaat mu ñëw. c'est ça loolu pour pour pour pour chest pour épaule même chose bu buy yëkkati day yëkkati one shot ñëw ndànk. si bépp exercice bu muy def si biir buy entraîné buy def leg day buy def jambes yi tamit buy pousse day pousse one shot ñëwaat ndànk pousse one shot ñëwaat ndànk loolu mooy travailler explosivité puis moom explosivité boobu am na ko à la base mais foog mu gën ko performer comme ça bu ñëwee bu taxawee ak kenn men laisse tomber doo ko mën a contenir tellement que day ñëw en en explosivité moom dafay fort quoi. léegi nag noonu la loolu mooy première phase de préparation. non voilà mais gis nga bu paree tout le temps bu paree wee nag euh, muscu am boobu noonu day enchaîner direct contact sur le champ man loolu ñaari yooyu considéré wu ma leen comme deux séances même séance lay doon maanaam day muscu enchaîner directement dem contact gis nga pousse boobu muy doon pousse explosivité foog mu miinal ko bëréwam tu vois foog mu appliquer ko sur le champ léegi su ko defee connexion musculaire mind muscle maanaam sa sa cerveau ak sa muscle day gën a connecté wu exclusivité boobu daf koy gën a am si si mouvement wam direct xam nga koo xamante ne dafa dem def ko saal kese ñibbi gàllewam kooku day am exclusivité mais boo ko yóbbuwee mu bëree du ko mën a appliquer si biir bëreewam moo dal yenn mbër yu bëri yoo xamante ne da nga naan ko bëri na matin mbër yi musculation matin contact soir wala bu ñu demee musculation soir du ñu contact mais tey boo musculation ba pare sa yaram day nga bëgg enchaîner contact. non non non non gis nga nag foofu nga war a tàmbalee sa yaram endurance musculaire en tant que mbër foofu sa yaram day gën a endurance normalement bu deful bu nekkee benn jour boo xamante ne du contact deful contact juste après noonu sax dam kon nar a defloo cardio après musculum puis je te le dis période bi nga xamante ne foofu ngay gën a laalee sa fon mooy fi ngay jeexalee ba pare dem pousse après foog ngay dem au delà de tes limites tout le temps. Mm-hmm. Mhm. je te le boo pare muscu da a foog ne boo boo paree muscu boo paree muscu c' est pas parce que da ngay paree muscu rek que da ngay di nga tas mais boo demee bëree ak directement di nga sentir différence sa yaram dafay mel ni da nga gën a fort mais say muscle yi day bañ mais période boobu nag la connexion bi di ñëw entre sa mouvement yi nga def ba pare nga koy appliquer xam nga booy ma ma jox la juste exemple kenn bëgg la simpi simpi maanaam jàpp la xëcc la yëkkati la mouvement pour résister simpi lan la. balaa nit ki di la taf pour yëkkati la xam nga da ngay rasu di wàcc mm-hmm. di xëcc wàcc boobu noonu lan moo koy def mm-hmm. sa hamstring moo koy def hamstring mm-hmm. mooy mooy mooy bi nekk si ginnaaw tànk yaa ngi siblama léegi nit koo xamante ne dafa am doole hamstring foog nga appliquer ko nit koo xamante ne période bi ngay yëkkati yëkkati cinq minutes lan la da nga koy xëcc jàpp benn clip bu ndaw mooy mooy mooy euh, booy déclive nooy def da ngay jàpp si suuf sa ndigg sa baado doo moo koy def sa doo boo tàmmee di def doo ba mu fort foog nga miinal ko di jàpp di yëkkati di jàpp mm. di yëkkati mais avec la méthode tu comprends mm-hmm. donc pour yow séance de musculation bi dafa war a jege yow ak séance de contact bi pour sa li ngay liggéey ci musculation nga miinal ko sa bëri voilà merci beaucoup super c'est pour man loolu c'est tellement important la loolu moo loolu mooy indi mettons bëri yoo xamante ne dañuy am doole mu leer la nit ki am na doole mais bëriwul ak doole wam tu comprends mu la